te micro bi yow. waaw bu <laughs> yaa ngi ci jàmm. ma bàyyi la ak sa caméra nga nuyonteeg téléspectateurs yi waa Fatick ñëpp nga nuyu waa Sénégal. maa ngi nuyu di nuyu Sénégal ak waa diaspora man Monica nekk membre Fatick ñoo far. maa leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay kontaanee teel sa micro bu baax ñun kontaan nañ eh, ci tabarkàlla eh, bu ñu la ko ñaanee xaw ndax di nga ñu ko mayaatam déet. nga mhm. defaat sa présentation. parce que neex nañu Monica. Mhm. Eh, vitrine Fatick tabarkàlla Monica nekk ci membre xaw ma Fatick xaw ma lan. tabarkàlla ak reetaan bi koy tëjee ni ko waxee. ko mu waxal ko boppam. yëkkati micro bi ci kaw wax. asalaamaaleykum waa Fatick waa Sénégal ak waa diaspora man Monica nekk vitrine région de Fatick ak membre de Fatick ñoo far maa leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay fay waaw waaw yàlla Monica ñu ngi eh, léegi eh, da ngeen am moom ngeen di ak kan. ak Momo Dia. kañ. le 23 incha allah au stade Massène Sène. le 23 août juillet le 23 juillet incha allah. fan. stade Massène Sène ñoo ngi woo waa Fatick ñëpp bàyyiwuñ kenn parce que nag première édition la Bal du Sine. mais euh, mais mbaa ci jour concert bi balaa ñuy wax way euh, wax musique ak culture euh, dina am xale yuy dox moom ñoo xam dañuy défilé ndax dañ laa gis nga romb rombaat réalisateur bi moo ni ma ndax bàyyi nga xel ci kii wu xale bi ni muy démarré wa dansement dansement waaw incha allah parce que en tant que ambassadeur de la région vraiment mën naa ci biir incha allah <laughs> dina neex Ndiaye da nga bëgg wax parce que da ngay wax léegi moom ngay joxaat waaw da wax léegi joxaat ko waxal li nga bëgg wax yow Ndiaye euh, nuyoo wala wax li nga bëgg. Euh, salaamaaleykum Aba maa ngi leen nuyu. Euh, mais avant tout damay jaale sama bopp. ci mm-hmm. xam te ne as dafa suñu frère. vraiment yàlla jëlee ko fi. Mm-hmm. di ko ñaanal fi mu jëm fi mu jógee yàlla xaare ak àjjana yi gën a kawe. Mm-hmm. léegi nag dafa am événement bu ñuy jublu. bu ñu tuddee le bal du Euh, association Fatou Diop Fall organisé ko association Fatou Diop Fall dafa nekk association boo xamante ni day liggéey ci wàllu culture mhm. ndax dèjà am na ay artistes fii ñëwoon yoo xamante ni Fatou Diop Fall moo leen produire oon mhm. dafa leen clip mhm. yaa ngi dégg ñu ne pourquoi pas ñu organiser le bal du Sine ànd ak Momo Dieng le bal du Sine nag euh, dañ ciy woowaa Fatick yëpp ndax Sine euh, da ngay dem ba Toubacouta di nga dem ba Jaxaaw di dem ba Caajaay di nga dem ba fépp moo dañ ciy woo monsieur Matar Ba ministre maire de Fatick di ci woo docteur Cheikh euh, di ci woo euh, maam Adama Ndour mm-hmm. di ci woo euh, Amar Diouf Maysa Mayakoor Diouf di ci woo nag suñu mag Lamine Camara mm-hmm. di transitaire bu mag mm-hmm. di DG Al Amin Transit di ci woo Fada Diène député di ci woo Adja bint Seck di ci woo waa Fatick yëpp Kulim juum di wax ne événement bi tamit dañ ci ànd ak ay partenaires ku ci mel ni Héritage Couture héritage couture koo ko xam xam ne jeune la boo xam te ni lépp lu jeune di def fii Sénégal da ciy jàpp Modou Gueye Modou Gueye héritage moom dégg naa ne moom am na lu mu jot a dugal loo xamante pour ñi nga xam ne dañu jënd ticket VIP la waaw ndax moom moom boo ko xamee jeune la mais ci jàppale jeunes yi la bokk ci jàppale lépp moom ànd def rek mm-hmm. lan la def ndax Modou Gueye dane man mm-hmm. héritage international képp kenn du moom sama xarit bi mu mm-hmm. ne képp kuy liggéey ci Sénégal looy def dinaa ci jàpp balaa ngay xam mooy kan nga ànd ak moom génn Modou Euh, dix personnes yi nga xamante ni dañu njëkk a jënd ticket VIP dañuy def benn tirage da may bon pour cinq sañse bu ñuy sañse ce jour tabaski mooy kon waa Fatick nañu jëkkante ndax ñi nga xamante ni ñoo njëkk a jënd ticket VIP cinq mille francs lay jar am nañu bon ci héritage couture tirage lay doon nag waaw bon bi mën a dem ba cent cinquante mille mën a dem ba deux cent mille waaw événement bi loolu la euh, di le 23 juillet di ci ànd ak Momo Dieng euh, billet yi fan la am fu ñu koy jaayee ñaata lay jar billet am na 2000 am na cinq 5000. mooy VIP loge. ndaxte VIP loge bi euh, pour xale yi la nga xamante ni bu ñu ñëwee dañuy mën a nekk à l'aise ñu dafa leen ay barrières kenn du leen déranger. Mm-hmm. ab ñoom abaa ñëw jaagar jaagar ñoom Didi. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. pourquoi pas waaw pourquoi pas. ñëw sax waaw incha allah. fan la fan la. Euh, yi dinañ ko mën a amee ci bergerie du Sine. bergerie Sine waaw bergerie du Sine ku fa dem di fa am billet ku dem tamit les résidences du Sine di nga fa am billet. Euh, léegi fii biir Dakar nag ku bëgg a jël pour dem numéro waaw bi euh, numéro téléphone bi 017 euh, la 59 81 ak 77 244 25 95 tamit sans oublier am na suñ benn partenaire bu tudd tamit les résidences du Sine muy Fade Guène ak Safru SA di may samay kor Diouf ak Naar Ñaan family business moom tamit ci partenaires yi la bokk moom même moom tamit nee na ñi nga xam te ni dañu njëkk a jënd ticket simple may na ay bon pour ay sañse moom moom ko présenté kenn man nag su doon may ñoom nag man nag su doon ñoom ay ay ñoom daas ngom ñaa ak yëpp ko moom waa Fatick ñoo ko moom dañuy jënd ay billets yu bari mm-hmm. may ko xale yi man loolu moom xale yi I think loolu it's a very mm-hmm. mm-hmm. koo xamante ne du taxaw te kenn yënguwul ñëppay yëngatu euh, day day feccal day yëngal mag ñi yëngal xale ñi yëngal ñëpp abaa. am na solo ah, kooku di Momo moo am na solo mooy uh, lu ñu fàtte nag lu am importance. yow nga lépp ba mu des say. Amadou Sall dafa nekk suñu frère. Euh, rek ñu bokk benn koñ. Mm-hmm. une deux mu ne euh. Euh, moom nag dañu ko ci bis bi te bokk na ci parrain yi. muy doomu Macky Sall. Mm-hmm. Amadou euh, nekk suñu frère ah, Amadou Macky sama xarit la ci parents yi la bokk. ah bon ndax moom ñoo bokk benn alignement. macha allah doomu Fatick la ñu bëgg Fatick ñëpp nga dajale def leen la wax ne bis bi nag sa la. Mm-hmm. ñu ngi la ciy woo le 23 juillet au stade Massène solo ay di fi nga génn ku la fi génn joxal ma. waaw fi ma génn euh, tey nag Aba euh, Soxna Dia Soxna Dia moo ma fi génne soxna bi nga xam ne mooy jaay lépp elle vend absolument tout lu waay bëgg rek boo ko waxee dina ko lijjanti numéro mi ngi nekk 78 243 40 35 sama dàll yi tamit nekk original London shoes ñoom ñu ngi nekk fële ca Sacré-Cœur seen numéro de téléphone nekk 77 884 08 68 Abba. am na solo euh, Diop. waa may sant ñëpp di sant Maysa Waly Dione moom moom ma génn fii mi ngi ca Waagu Ñaay Maysa Waly Dione ak son frère euh, Momo ñoo a génn ci kaw ci suuf les jumeaux de Rio ñoo a génne foofu may dégg bu SKF euh, Samba sama copain ba nekk fële ca Rufisque di joxe yére yu baax yi ma koy kontaane bu baax merci à tout balaa monika di nuyoo bu dee euh, Papa Samba mën nga ñëw wan photo as man xaw ma ni woon. Euh, as mi la tarkal la sama. suma xarit la nee na yegg seegul ci moom Pape Samba mais sama ok ok nee après dinañ ko wane ana Monica salaamaaleykum fi ñu toll lan mooy sa la fin. xanaa di de la fin. sa eh, eh, eh, de la fin. kaay kaay papa papa Ndiaye. kaay moom macha allah. waxal sa caméra ngi nii sa mot la fin. xanaa di fàttali waa Fatick. <laughs> xanaa di waa fàttali waa Fatick rek finale euh, Miss Sénégal 2021 le 13 août incha allah maa ci woo waa Fatick ñëpp mhm. au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose mhm. man Monica bëgg naa incha allah dem jël couronne bi ñu yóbbu ko Fatick incha allah buñ la ko joxul danoo sàcc. buñ la joxul coupe bi danoo sàcc. am na sa jàmm yàlla kii mel na a ba pare ba intellect. intellect élégance kii bu doxee xam nga ne bu dee ñëpp lañ mel moom ñëpp dina wax permettez-moi aussi. mu wax séeréer voilà parce que am na sama maam ak sama tata yu may seetaan yoo xam ne dégguñu wolof. mexey simna atundule Fatick foofu fakkee widuna mexey ne el monik jarom fadi kraines mexey jega hakit har baxey fa hakit betana hak mais xooya noon koy no final Miss Sénégal fa le 13 août inchallah ndax in waago gar jànkoroon Miss Fatick fe Miss Sénégal fe bisin Fatick li tëj émission bi leen rek la li tëj émission bi leen rek la yéen waa plateau bi ñi nekk à la régie Pape Samba mi réalisé ñoom Cissé ak ñoom ñëpp pour wut lu neex Monica mi ak waa Fatick ak le dage Ngom ña ak ministre bi yore sport dama naan jokk ah ak Fada Dieng dama naan jokkoo njar